mbokk yi niñ koy defee rek ci bokk di fàttalikuwaat ak bokk di nafaraat mu mel ni nag tey dañoo li li nga xam ne moom lañ moom lañ tànn ngir woote te waxtaane mooy ñu xalaat ak di bàyyi xel xéewal yu rëy yi nga xam ne suñ borom defal nañ ko di bàyyi xel itam lan moo tax ñu ñëw ci àdduna si xéewal yi nga xam ne moom lañ suñu borom defal dafa mat bàyyi xel lool ndax dafa bari ba lépp loo xam ne doomu aadama soxla woon na ko wala itte woon na ko ci luy defar àddunaam ak luy defaral allah alaxiram suñ borom andil na ko ko jàpp dalal ko ko ngir bëgg loolee ngir dunduk àddunaam jàpp ni mu ko bëggee gindu alaxiram itam ëllëg mën a jàpp ne ni nga xam ne ni la ko bëggee ba tax na li tax bi bindee doomu aadama ak jinne dafa wax ne daw bi bindee doomu mbindeef yëpp dafa wax dafa xamle ne binduma dara ngir ay ay ay maanaam ngir a foo wala ngir lu ñàkk binduma dara lu ñàkk njariñ amul li bind lépp ngir njariñ lekk tax mu bind ko bokk na ci nag kon bi mu bindee doomu adama moom am na loo xam ne moom la ko sant te boole ko ko ak jinne mooy nañ ko nañ ko jaamu doo jaamu maanaam jaamu googee nag buñ ko bëggee xam dëgg-dëgg mooy dañuy wax ne li mu bëgg li mu njëkk li mu njëkk a bëgg ci doomu aadama ak jinne ak jinne mooy ñu nangu ñu nangul ko moom suñ borom xam ne moom képp la mooy ki man mooy ki sañ mooy ki nga xam ne moom lañu war a jaamu mooy ki nga xam ne itam moom la ñu war a déggal ndax moo nu mën a jox njariñ du keneen moo nu mën a jox njariñ loola nag moo nuy xamal ne kon bi mu waxee ne binduma doomu aadama ak jinne lu dul ñu jaamu ma ñu jàpp ne jaamu jaamu mooy julli ak natt asaka ak woor ak kese ak woor ak yi demee noonu loolu rekk mooy jaamu yàlla déedéet bi bi mu bindee dañoo bind ngir ñu jaamu ko jaamu googee li muy tekk mooy nañ xam ne bépp jëf ju doomu aadama di def wala jëpp jëf ju juddee di def na xa na loolee na doon loo xam ne lu suñ borom digle la wala lu suñ borom nangu ñu ku ko def la waaye waru lenn loo xam ne boo dee dem ci marché ba lang fay wuti na doon loo xam ne lu suñ borom gërëm loo la la fay dox itam na doon tànk yoo xam ne yu tànk yu suñ gërëm suñ borom gërëm loo boo nee sa biir kër itam ña ngay jëflanteel ku mën ku mën ji doon jëflante gën a doon loo xam ne lu suñ borom gërëm la langa ngay wax ak ñoom itam na doon lu suñ borom gërëm la leen di yéene itam na doon lu suñ borom gërëm loola mooy tekki ne binduma doomu aadama lu dul ngir mu jaamu ma tekkiwul rek julli ak woor ak natt asaka demee noonu waaye lépp bépp jëf bépp jéego wala bépp yëngutu wala bépp dal bu doomu aadama di def na loolee na tax na suñ borom na doon loo xam ne suñ borom moo ko gërëm loo ci moom na doon loo xam ne lu suñ borom bëgg ci moom la loolu mooy tekki ne suñ borom dañoo bind ngir ñu jaamu ko mooy suñ lépp na doon luy tekki ne nangul na ko ne nangul nañ ko ne yaa suñu borom nangul nañ ñu ko yaa moom nangul nañ ko ne yaa yaa xam ya nangul nañ ko yaa ne ko yaa sañ ya nangul nangul nañ ko itam ne ko yaa borom yaay borom kattan. bu ko defee loolu nag ngir ngir ñu mën a nangul suñu borom ni ñu ko war a nangulee man koo jaamu ni ñu ko war a jaamoo du ne duñ koy defee suñ xelum bopp du ne dañ koy defee ci suñu gis-gisu bopp waaye moo nuy woon. nan lañ koy defee loola nag lam ko defee mooy dafa yónni ay yonant wàcc ci ñoom ay téere wane ci nan lañ war a jàppe suñ borom wane ci itam nan lañ ko war a jaamoo buñ ko dee jaamoo kon loolu mooy li nga xam ne moom la njëkk defal doomu aadama ngir mu mën koo jaamoo mooy andil na ko koo xam ne moo koy won nan nga war a jàppe suñ borom moomee andil na ko koo xam ne itam moo koy won buñ ko dee jaamu nan lañ ko war a jaamoo andil na ko itam koo xam ne moo koy won ne buñ ko dee jàppal dara nan nañ ko war a jàppe loola yonent yi la yónni ci doomu aadama yi waaye yëmul ci yónni yonent yi képp waaye dafa jox doomu aadama yi itam xel moo xam ne loolee nga xam ne moom la ko yonent yi di jox ak li ñuy jàlle ci moom da koy xam nam ko war a xamee di ko defee itam ni mu ko war a defee yemul ci loolu itam comme doomu comme adduna si biñ lu fa indee du ne jaamu yàlla képp la waaye dañu indi ngir ñu ngir ñu nangu ne ay ay jaamam lañ waaye boole yi itam dundal adduna si yi nga xam ne moom lañ nekk bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy dundee adduna kese rek waaye duñ ko dundal waaye dañ ko war a dundal dund ci loolu moom lañ suñu borom bëggal ci bu ñu nekkee ci kaw adduna si loola nag ngir ñu mën a dundee adduna si man koo dundal dañoo jox am xel boole ko àdduna si nga xam ne moom la ñu war a dundal lépp loo xam ne mooy jàpp ndal man koo dundal da ko cee def ba mu fees dell le le kon nag mu mel ni kon wàcce nag doomu aadama dara desut ci doomu aadama lu dul mu jéem a góorgóorlu ngir yeyoo li nga xam ne moom la ko suñ borom defal te loola mooy man koo sant ni nga ko war a sante loola nag moo tax bi bu suñ borom xam lee ne doomu aadama day mooy ki nga xam ne moom la suñ borom borom bëgg a ci àdduna ngir mu. wut mu doon wutaayam ci kaw àdduna kon kutaay loole ngir ñu mën koo def nag dëgg-dëgg faw ñu xam lan la suñ borom bëgg ci ñun nan ak nan la ko bëggee ci ñun ak nan lañ ko war a defee loola nag moo tax ba moom suñ borom moomu bi nga xamee ne mi ngi nuy won lii tax ñu mën a wu ñu mën a wone ne ñun ñii kat kutaay suñu borom lañ ci kaw suuf te ñu ngi doxee ni ñu war a doxee loola duñ ko mën a amee wala duñ ko mën a defee lenn ci lu dul kaw kaw xam-xam maanaam jàng ak nangoo jàngale loola nag ñi ngi koy jëlee ci biir aay bi nga xam moom la suñ borom bi waxee bi mu waxee ne maa ngi bëgg am koo xam ne moom laa koy bëgg a def moom laay bëgg a def sama kuutaay ci kaw suuf te malaayika yi am luñ ca gis ba tax ñu am ca jaaxle ba tax ñu wax la ñu wax suñ borom won leen ne man ki ma bëgg ki ma fay bëgg a wóot mu yónni na ngir mu wuti ma la tax ba di ko yónni da koo mate man koo def loola mooy nangu doon yàlla jox na ko xel moo xam ne mën na cee xam xamee jox na ko am xel moo xam ne itam mën na cee xamlee kon ñoo daal di xam moo tax suñ borom waxoon ne wa allama adama al asmaa kullaha suma aradahum alal malaikati loola nag ba mu ko defee kon bi yàlla xamalee doomu aadama da ko wax ne dafa wax ne wa allama waaye bi nga xamee ne doomu aadama dafa war a xamle mooy da ko wax ne am bi hum xibaar leen ak xamal leen bokkunu xam nañ ne xamleeg suñ borom xel mu munu ca àgg doomu aadama yi jenn ju ko mën a def itam ni mu ko mën a defee amul ba tax na li nga xam ne mooy li doomu aadama yi def mooy jéem a jot li nga xam ne moom la ko suñ borom sant ci ni mu ko mën a ci këm këmtu lay kattanam loola nag bu koy def itam na ko defee ci kaw ni nga xam ne ni la ko yonent bi sallallahu alayhi ni la ko suñ borom bëgge suñ borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu bu bëkkee ne dañuy dundal dundal maanaam dañoo bëgg a def bu njëkk bi muy nangul suñ borom xamal ko nag yaay yaay suñ borom xamal na ko say jaam képp lañ xam na xamal ko ne yow rek lañ war a topp xam na xamal ko ne itam yaa sañ ci ñun yaa man ci ñun loola yonante yi ñoo nu koy won waaye bu fekkee ne dundal suuf gi nag mooy lan ci fan lay tënku ba tax bu mën a tegu ci ni mu war a tegoo mooy bul lor kenn te bu la kenn lor maanaam adduna si lépp loo fiy def itam na doon na doon loo xam ne du lor kenn waaye lu keneen di def yi leen keneen ku ne tam la may def na ba na doon loo xam ne day lor kenn maanaam loolu mooy tax dundu kaw suuf wala dundin bi mu bëgg a dund ci kaw suuf ñu mën koo dund ci dundin wu rafet kenn ku ne yaa ngi bàyyi sa xel ne duma ko lor moom itam mi ngi lay bàyyi xel ne du ma la lor loola mooy tax ñu mën a dundal suuf ni ko war a dundali yàlla ñu suñ borom ni nga xam ne nag mooy borom kattan borom sañ-sañ te mooy borom man-man yàlla nañu dimbale ba ñaar yii nga xam ne moo tax mu bindu mu ñu nangul ko ne ko mooy suñu borom nangul ko itam ne moom képp moo sañ ci ñun nangul ko itam ne moom képp moo man si ñun loola ak li ci teguwaat muy dundal suuf ji te dundal suuf gi gi itam dimbal nañu dimbali nañu ba lépp loo xam ne moom lañ soxla woo ngir mën koo dundal def na ko ci kaw suuf si wala ci biir suuf si loola nag kon li des mooy jéem a xam nag loolee nan lañ koy defee ak nan lañ koy maanaam kenn ci àdduna si dara loo xam ne doomu aadama fent na ko fi amut da lu ne dañ koo composé rek fi nga ko ci kaw suuf wala ci biir suuf nga génne ko composé ko def ca la nga ca def waaye doonut lenn loo xam ne doomu aadama dafa am dafa am man-man mën a fent dara ci dara loo xam ne amut cosaan ci kaw suuf wala amu ko ci kaw garab yi wala amu ko ci li nga xam ne moom la suñ borom bind kon loola mooy wane ne lépp jëfi suñ borom la am doomu aadama moom defu fi dara li mu fi wala mu fiy def lépp ci kaw xéewal gi ko suñ borom jox la koy jëlee man koo def waaye du leneen la koy defee kon suñ borom bi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom sañ-sañ te mooy borom man-man yal nañu gën a dimbale ba lépp loo xam ne moom la bëgg ñu def ko ñu mën koo def ni mu ko bëggee lépp loo xam ne itam bëgg ko ci ñun ñu am yàlla dimbali nu ba duñ ko defee ni nga xam ne ni la ba duñ ko def loola suñ borom yàlla mën na ko jàpp na ko yàlla dañ ko defal ginnaaw loolu itam ñi ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom sañ-sañ te mooy borom man-man xam moom xam nañ ne képp moom képp moo man xam nañ ne moom képp moo sañ xam na ne moom képp itam moo am xam nañ ne moom képp moo itam moo mën a def kon ñi ngi koy ñaan lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te sonal ñëpp te xam nañ ne moom képp moo ci man dara loole nag ñu ngi delluwaat ci moom ci man a mboobee ci sañ-sañam boobee ngir mu jëlee ko ci àdduna si mu jeex tàkk loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam Cheikh nga xam ne moo fi nekkat Serigne Touba tax xam nañ ne dara du itteem lu dul doomu aadama yi ak l'islam yàlla na ko borom gën a kattanal gën koo mënal gën koo sañal ba lépp li nga xam ne yéene na koo def ci lislaam yéene yéene koo def ci doomu aadama yi mën koo def de kawe njortam te ñu ànd koo moom te jatee ngërëmu suñu borom képp koo xam ne itam l'islam mooy sa tool yàlla na la suñu gën a dimbale